Écoutez et vous entendrez. Regardez, vous verrez. Dès son jeune âge, il a commencé à tâter le micro. Et aujourd'hui, il devient l'un des plus grands animateurs de ce pays. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter le fils de Saint-Louis du Sénégal, le du Mesdames, Messieurs, voici Le prince est là, Richard from du Sénégal. Il a un savoir-faire inouï. Il est éloquent. Yéen ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum. What's your name? Yow waxal waay. Ak sig lañ wax. Waxtaane ko rek fo. Gis naa sal doy na. Tan xasaar. E ñi seetaan xasaar. fraîche pétrie de talent avec beaucoup de style. li nga tënkee bi lan la. xëy ah, man sa yére bi rek moo may rey quoi. yaa ngi toj tiktok bi yow. suba la ma la mais mu jag jagi xaaral ma laalat bant. Mesdames, Messieurs, tous les artistes qui font le buzz, tous les artistes qu'on avait presque oubliés et tous les artistes qui veulent de la visibilité et de la promotion passent ipte facto par lui, car c'est l'animateur du moment. waxal waay. Abdoulaye. yow moo ma def yow. fépp. oh. franchement ça c'est sucré. def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen. bu ngeen ko deful ni ko yàlla def kat mu cravaché leen ba ngeen tëdd xëcaa yaa fi ne. Du lundi au jeudi de 11h à 13h sur la 2STV. Ne le ratez pas. Allez Sénégal Allez Sénégal ca kanam Sénégal Allez, allez, allez, allez, allez. Hop, hop, hop, hop, hop. J'ai la voix un peu cassée parce que hier, C'était vraiment la fête, une fête inoubliable ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Amis chers téléspectateurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue ku doon nelaw na nga yeewu kapo bi yegsi na ngir bégal leen askanu Sénégal ak li ko wër ana ñi mën a moon yegsi na lii la naan dikkati na ñooy i nañu ñoo ngi nii bunu pontu jam bunu paaka laal lam set aram nañu ay te ñu ne caas di dox ñëw ci yéen kontaane leen bu baax a baax tous qui nous regardent Nouvelle-Zélande aux États-Unis ñu euh, euh, ngi nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi di seetaan ca Allemagne bokk na également ci ñi nga xam ne ñu ngi di seetaan un peu partout dans le monde nous sommes trop trop trop fiers de nos lions euh, ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ña nga ca jongante boobu di jaayante ah ngir soulever li nga xamante ni moom moo di coupe bi cette année de 2022 contentement mbégteeg bànneex ci ñëpp ñu ni seetaan ici en Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Zimbabwe Cap Vert Libreville Franceville bokk na également ci waa Congo Brazzaville di nuyu bu baax a baax waa Guinée équatoriale ndaxte démb moom door nañ leen ba ba leen fële ngeen tege ay ca ñu ngi leen di tam bu baax a baax waa Cap Vert fàttewuñ leen ndax yéen suñu ay xarit ngeen yéen donte wax dëgg yàlla euh, euh, euh, li leen doon bariwut waaye xam ngeen ni ñun bëgg nañ également tout ce qui nous nga xamante ni moom ci Mauritanie wani ba biikum Mauritanie a a a di leen jox seen wàccuwaay bokk bokk na également aussi nga xamante ni euh, ña ngeen di seetaan euh, de l'autre côté foofu nga xamante ni moom moo di ci Gambia all Gambian people ak sing daari wa good and everything is right everything boy it's your friend and we are so glad for you Gambian people we Senegalese people we are so glad for all Gambian people gis nañ seen taxawaay gis nañ seen seen seen seen seen seen soutien ah ni ngeen bëggee Sénégalais yi ah Sénégalais yi ñoom ni ñu bëggee Gambien yi lépp rek euh, day wane ni Sénégal and Gambia are the same family and we together reason why euh, ku ci nekk ci ñun rek xam na ni jàmm la war a yéene moroomam kon na kontaan nañu bu baax a baax a baax yàlla na euh, jàmm yàgg sax ci ñaari dëkk yi euh, wala sax ci ñeenti dëkk yi muy Mali di Mauritanie di Sénégal di Gambie ci kàttanu yàlla yàlla ko suñu borom def en tout cas mbégteeg bànneex je la vois un peu cassée parce que hier quand fier des Sénégalais quand fier des Lions vraiment on a on a le droit vraiment de sortir et de d'extérioriser notre amour ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde kontaan bu baax a baax a xam naa ne namoon ngeen léegi dama xaw a raar tuuti xam ngeen loolu ndaxte ci 11 13 ngeen may gis mais je vous l'ai dit je le répète euh, maa leen di préparer pas mal de choses ici à la télé restez confortablement restez scotché ndax bu ma tàmbalee dootuma taxaw te bu ma taxawul dama leen di gaañ yéen xam ngeen loolu su ma taxawul dama leen di gaañ asmalik siyaare naa la grand Seydou bëggee naa la bu baax a baax di kontaane euh, bu baax euh, maman Rokhaya di nuyu ki nga xamante ni moom moo di l'international Alaaji Bacili Abel moo gas maa ngi lay siyaare <clears throat> tey gis ngeen baat bi a dee mais la yooxu dem bi ku ku yuxul bëggoo nekkuloo nekkuloo sénégalais parce que vraiment c'était c'était une victoire magnifique macha allah en tout cas looloo tax baat bi dee mais Gré yow mënoo ci dara benn noa nga yow rek leer rek temps yaa ngi commencé faral Sénégal may xanaan ma may ma mayoo Gré quoi du ma la jox mayo Sénégal parce que wóorul dama lay jox euh, euh, euh, mayo Sénégal nga porté la poisse fu ñu jëm léegi fan la ñu jëm yow bul sol mayo Sénégal bàyyi ñu gérer doxal suñu séance d'étirement juste après on revient et gars yi de maa ngi ñëwaat ay ca Gré let's go yo animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mën a waaw waaw xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal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 ma jiite dëkk bi animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne man ak waaw waaw animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy di ko yëngal ba ñëpp xol génne lépp lu leen metti woon fay sama noon def ko sama bor ala accu dama yokk jom jantal sañse dëgg daajte nekk ma menuisier Instagram TikTok Snapchat WhatsApp fépp la polluer li bi sa MP di ko sama marinade yéen ñëpp la xewil ni marima yokk ci tama def ci sama marimba su la neexul demal gasi kàmb ñun dañuy bégee ku fi si si nekk mbële amoo kattan da nga tële jàllal na le MC du gàtt sama lépp ngi naat yow réewoon de cat loo fi indi ma taal gàttuma njoolu ma taayi Dubaay xale yi songu kaana Dubaay ay eh, tous naat munoo si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 ayca mi ngoogu maa bu baax a baax son altesse merci beaucoup euh, ci ñu jël ki njëkk ci ligne bi en mois de février le 1er février 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum. bonjour monsieur Ketia. eh mais bonjour c'est qui là. Euh, c'est Mais Ousmane Diallo depuis Libreville, comment tu euh, vraiment. Ah mais est-ce que tu hyper content, hyper content. Mais y a quelque, qu'est-ce qui me fait mal, c'est pourquoi j'appelle. C'est quoi C'est quoi exactement, mon euh, ami Tous les, Séné, euh, les télés du Sénégal ne montrent pas au niveau d'international. Pourquoi ça La joie est parmi avec nous tous. Effectivement. Voilà, quand quand y a le joie, on voulait voir la public du Sénégal comment ça se manifeste quand Effectivement. Voilà, au niveau des eh, eh, RTS, au niveau des STV, aucune qui montre au, niveau d'international. Pourquoi vous ne pouvez pas déclarer ça au, ministère de, comment dire, tu as, tu as, parfaitement raison, je te laisse dire. Vas-y, tu as parfaitement voilà. raison. Exprime-toi. Voilà, c'est nous, on voulait quand au demi-finale, quand le jour qu'on écrase le Burkina Faso, vous nous montrez nos publics, on voit. Ndeysaan, a raison, il a raison, Voilà. Bon, merci mon ami euh, et frère. En tout cas, je suis très fier de toi. Merci beaucoup Merci mon pour frère. ces également. Je, euh, voilà, merci je vous, pour ces euh, attendez-moi, vous êtes là? je voudrais vous dire que euh, vous venez de dire une chose très très très importante, euh, que je vais je y appuyer parce que vous avez besoin également de voir véritablement ce qui se passe au Sénégal et un peu partout. au niveau au de l'obélisque, euh, tout. Partout, on voit quand même comment les gens se manifestent ça. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Voilà. Nous, nous, nous, nous voilà. allons essayer de faire quelque chose, je sais pas, euh, sur les demi-finales, essayer de se regrouper dans un bon coin et montrer véritablement ce qui se passe à l'UCAD, ce qui se passe un peu partout voilà, et au Sénégal. Canal qui organise notre coupe. Effectivement, En tout cas, tu parfaitement raison. Voilà, même si on, même si même on de montrer véritablement ce qui se passe au Sénégal. Merci beaucoup Très cher. Alors, il a vraiment raison. Le fait de montrer euh, les images, le euh, euh, euh, li nga xam ni moom moo di mbégte ak banneexu sénégalais yi un peu partout ñoom da leen koy da leen di neex ndax te bëgg nañu bu ñu seetaan match xool fans yi xool soppe yi xool super yi un petit peu fan la ñu nekkee naka la ñu nekkee ñoom itam di sétan wala naka la ñuy àndandoo ak joie bi ñoom da leen di satisfaire il a bel et bien raison donc du ñu am benn image à travers nos télé donc ñu ngi ciy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy yor. wàllu programme donc télé man foog ngeen jox ma programme bi fii ma zéro ko maaro xëy bu ma zéroon programme bi fii ah dama doy waar de ba ah, baax na gëré tey du ma dem ci seen seen séance d'étirement parce que dama xaw a perdre un peu de euh, un peu de temps donc damay ñëw rek attaqué dégg nga ak son yu bees yi 88 628 14 13 ma jël ki nekk ci ligne ba pare sama xarit bi Iso maa ngi ñëw de Ismaïla Sarr salaamaaleykum. ça va. oui bonjour. ça va tu eh man la Bintu mais booy xoolal li ma la sañseel yow. nga ni ma. nga ni ma. billaay. nga loolu dëgg la mais noo def noo tudd. Bintu Touré. Touré. ture Touré man ni Mori maa ngi lay siyaare fan nga may woowee. Touba. ah maa ngi lay siyaare bu baax yaa ngi am jàmm. maa ngi ci jàmm. naka nga gisee match Sénégal bi démb. Eh, man nag du ma seetaan match. yow eh xamalala nag day leen <laughs> match. lan moo tax si seetaan match. d'accord. ah léegi naxtu yow daal da ngay topp ci rimbalement bi rek ku dugal nga ne eh yow di dugal na mooy ñooñu nga gis ci statut yi ñuy bind ay ay kuyaata ñuy bind ay kulumu Ismaïla Sarr ñuy bind ay euh, euh, des des noms yoo xam ni non laisse tomber vu les statuts mais c'était autre chose les filles ana ma ni c'était autre chose mooy yéenay topp rumbalmaa bi rek bu nee Sadio Mané ngeen bind Boussa Mané lu leen neex ngeen di bind yéen. dinañu yokk yokk yee leen yóbbaale en tout cas kontaan naa dégg nga. Eh oui ma su ma ah? dégg ma ah. solante ma ko. dégg ma bu baax. ayca dimbali ma ci ah ma ñëw léegi. Aïcha euh, Bac jéemale euh, dimbali ma ma xool léegi léegi léegi très rapidement on enchaîne amis chers téléspectateurs merci quand même euh, Touré Mandi Mori pour l'appel depuis Touba di nuyu waa Touba yëpp Saint-Louis du Sénégal ma région ma fierté wa Saint-Louis nag yéen yéen ni ngeen siisee Ismaïla sa dougal ma dugal iso ñun waa Ndar moom nu ñu mel ñun waa Ndar moom réglé iso Sénégal la iso àddina la sama xarit bi il a fait un bon retour je vais en parler tout de suite mon ami tu as fait un un excellent match et et li nga football sax bariwul maa ngi ñëw mon ami 88 628 14 700 baat bi nag yaa ko deewal salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay jaare. maa ngi lay delloo ziar. yaa ngi am jàmm tur bi Aram. Aram. Aram maa fi woote woon temps yii dëkk Grand Mbao. ah yaya naka mu noo def. ba doo séeréer. boo nekkee séeréer da ngay seer ba pare doo réer xam nga séeréer dañuy doon ay seer ba pare doog a réer. maa ngi non loolu la yàlla dogal di ñoom mooy baal ma séeréer yi fële mais non def yaa ngi ci jàmm. ça va maa ngi ci jàmm. c'était comment hier chez vous. cool nice. ah trop neex sax. gars yi di yokku na yow. waa eh! gis nga. ngeen kontaan kontaan continuer. yàlla nañ ko yàlla nañ ko def ba ni ñuy gagné kan euh, kan bi ci kàttanu yàlla. dañuy jël ah, c'est de remporter la CAN c'est une obligation de le remporter je l'ai dit depuis le début yàlla nañ ci yàlla nañ ci yàlla defal ndam incha allah. am incha allah dañuy am ndax man sama jëm boobu ma damaa kontaan ma. Ndeysaan Ndeysaan man tam kontaan naa bu baax. Aliou Cissé li mu teg bee moom macha allah. Cissé ngaari jarul mais moom kay am na na ñu may rey nag. am na ah. ñu ñu ñu doon xam nga Aliou Cissé dafa bari ñu koy clash. waaw man gis nga man loolu man dama koo contre. waaw mais mais mais ñun nag suñu suñu dëkk bi ñu dëkk nii mooy dëkk dëkk wax njaay dëkku nettali njaay boo bëggee boo defee ñu wax boo deful ñu wax foofu ñu comprendre loolu. léegi nag de ce xale yi dañ doon defaat vidéo naan billaay Aliou Cissé yaa ma gën billaay maa mën maa ñeme yàlla man maa mën a fen <laughs> léegi yooyu noonu vidéo yooyu dañ ma doon rey pour wane ni la Sénégalais lépp muy def da koy def ak comédie tu vois un xam nga lan mooy wax ji ah? ah dañ ko war a bàyyi moom mu liggéey waaw waaw ñu jël gis nga nit ki moom boo ko mënul encouragé. jot na ñu jot nañu bàyyi ko mu liggéey jël waxu négatif bi tegee ko de côté. jot nañu bàyyi ko mu liggéey dañu encouragé ko rek nga xamante ne tôt ou tard dinañ am lu baax. yàlla baax na moo gën nag tey ñu nekk tey di wax li wëg laa mais tamit nag sama joueur bi nag démb tamit nag taj na si nag. kan la. Izo xanaa. yow ñoo bokk yow. ah waaw. Eh, déedéet bul tax ma dama lay teral de. mais noo ko gisee noo ko gisee dugg seem dugg seem ci terrain bi xam nga nag ku ñëpp di xaar boo ñëwee boo deful différence rek day doy waar te pourtant ndeysaan dafa dafa wàññi sax jeu bi démb sama xarit bi. billaay ndeysaan. mais dina gën a neex bàyyi leen ba demi finale yi accélération yooyu ngeen bëgg romb zone bi rek dem def def centre yooyu ngeen bëgg. may leen ko rek mi ngi ñëw mi ngi ñëw sama xarit baa ngi ñëw je suis fier de lui. en tout cas maa ngi koy kontaane soxna su jigéen so su soxna su góor dafa am ba ma naan soxna su jigéen sam xel may commencé dem dama kontaan démb en tout cas maa ngi lay remercier merci beaucoup euh, pour l'appel euh, ñu ngi am mbégte bu baax baax yow itam ci yow di la ñaanal jàmm taw feex sutura euh, ci yow moo mile Grégoire hier c'était la fête au Sénégal et un peu partout dans le monde donc ñu yëngal kër yi un petit peu réveiller un petit peu la conscience des jeunes et que a baax a ma looloo ma ci neex si c'est kër yi ma xool ayca on va danser c'est la fête et on va tout gâter aujourd'hui vas-y vas-y mon très cher ñu dem